Euh, ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam boobu mu ñu tànnal muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa di amaat mbégte bu baax ginnaaw bu ñu sante yàlla sunu boroom subhaanahu wa mi nga xamante ne ci mbaaxam ak ndimbalam lañu taw fii xale ñu fekkewaat tey jii di aljuma ba mën a dikkaat ak yéen ci seen jotaay bu mag boobu nga xam ne moom lañ baaxoo ànd ak yéen saa yu nekk muy jotaayub ëttub xidma eh, ni ngeen ko baaxoo toppee saa yu nekk eh, jotaay bi jubluwaayam mooy yeesal ak faram-fàccee mbooleem mm, discours wala xutba yi nga xamante ne ñu ngi koy jaarale ci jumaa ji ak indi ay jàngat yu gën a yaatu ci biir xutba yooyu wala discours yooyu nga xamante ne day jàll ci jumaa ji wala mu bàyyikoo ci sëriñ bi tey niñ ko baaxoo defee dañuy dellusiwaat bu baax ci xutbab aljuma ji tey ci ñaareelub ajjuma ci weeru jumaa dal ula euh, te àndoon ca ak sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso tey jii sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso ni mu ko baaxoo eh, ànd na ak ñun ci xutba bu am am solo muy ñaari xutba yoo xamante ne ñaari xutba yu yu dikk ci waxtoom la waaye yoo xamante ne benn bu nekk day mottali moroom ji li xutba baaxoo làmboo te mooy sant yàlla bàkk ko ci melokaanam yu sell yu laab yi mu làmbool waaye ñaanal xéewal ak mucc yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa loolu xutba bi làmboo na ko waaye itam soññee fàttali waare dige takkoo itam am na ci biir xutba bi nga xamante ne sëriñ amoon Mamoun soo joxee na ko tey jii buñ dellusee rek ci xutba bu njëkk bi ginnaaw bu mu sante yàlla eh, yàlla mi nga xamante ne mi ngi seede ne ku wéet la ci amam gi mu am nekk yàlla moom kot nga xamante ne amul ku ko ñaareel ku wéet la ci melokaanam yépp yàlla moomu mooy ki nga xamante ne moo dëgëral woy gëm ñi ñi nga xamante ne gëm nañ ko te nangoo diglu ay ndigalam ca topp ja yàlla mooy ki leen dëgëral ca imaan googa dëgëral goo xam ne ndimbalam la ko la ko gunge daat ne daat dellusiwaat nag bu baax ci Eh, tagg ko moom sunu borom subhaanahu wa tagg yu dëppoo ak eh, ak ak jëmmam ju tedd ju sell ji waxtaane sellaay gi mu sell moom moom borom bi subhaanahu wa taala wanne nit la koo xamante ne eh, jëmm la joo xamante ne mm, kenn mënta takk kattanam kenn mënta takk yitam dooleem kenn mënta takk yitam melokaanam yu sell yi nga xamante ne ñoo euh, duppoo ak moom euh, wax ne sunu boroom subhanahu wa taala mooy ki nga xamante ne mooy dimbale jaam ñi ci yërëmaandey boppam ba lépp luñ man ñu man ko euh, ba mu noppee ca tagg googu muy tagg yàlla ak di ko bàkk ci melokaanam yi nga xamante ne yu kawe la la julli nag ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam euh, wax ne yonent boobu nga xamante ne mooy ki gën ci jaam ñi mooy ki gën ci ñiy woote dañoo woo jëme ñu ci yoon woo xamante ne ku ca jaar texe ñel na la ndax caw yoonu texe rekk lay woote kooku mooy sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waata mu ne wasalla wa sallama ala xayri munaadin li haadihi saadati naada yonte bi salallahu alayhi wa alihi mi nga xamante ne daa woote jëmale ci ak texe te képp koo xamante ne wuyu nga ko ca wooteem boobu noona eh, yàlla dana la jox ab sukkandikuwaay booy sukkandiku ba mën a jëfe ndigalam yi bàyyi tereem yi daal di ñaanal nag ñi nga xam ne ñoo ko gunge woon ca wooteem boobu muy saxaaba yi waaye ñaanal mboolem njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñaanal mboolem ñi nga xamante ne gannaawam ñoo fi ñoo ko wuutu ca loola mooy ca jàngale ma ak ci woote woote bi ak leeral gi ñuy leeral li yàlla bëgg ci jaam ñépp wala ala alihi wa sahbihi al muwaddixiina li tariq liman jaa baadahum min ahli tawfiq ñi nga xam ne yàlla namm na ci ñoom daal ñu aw ca yoon wa dimbale na leen ba mën a leerlu ca niitu ca e, jàngale yooyu nga xam ne saxaaba yi ñu ngi ko doon jàngale te ña leen wuutu itam mm, di ko sa sàmm di ko saytu ba mu egsi fi mu egsi amma baad ginnaaw loolu nag fa yaa ibadallah yéen jaami yàlla yi ajibu daa'iyallahi nasiha wuyu leen wooteb yàlla bi nga xamante ne yàlla da leen cee jublu laabiire bëgg leen a wan yoon wu ngeen di jaar ba làq ngërëmam ba tàbbi ci biir yërmaandam ñi nga xam ne képp bu ko ci tàbbi mucc nga ba faw wax na ti itam na ngeen def ñu ragal yàlla ci tuubal ko bi tawbati ilallahi tawbatan nasuha na ngeen tuubal yàlla tuub gu sell ndax tuub wuy woote yàlla la ndax yàlla moo wax ne wa tuubu ilallahi jamian ayyuha almuminuuna laallakum tuflixuun na ngeen tuub jëm si ci man seen boroom euh, yéen ñi nga xam ne gëm ngeen su ngeen ko defee dinaa leen boole ci way texe yi dinaa leen def ngeen ngeen texe su ngeen tuubee danaa leen boole ci way texe yi kon loolu wo wuy woote bi yàlla la mooy tuub moo tax mu ne ajibu daayallaahi nasiha wuy leen yàlla mi leen ni woo di leen yóbbu ci ak laabire te mooy dikkal leen ngeen tuubal ko moom boroom bi subhanahu wa taala tuub nag lu làq ay ngeneen la yu baree bëri di e, jumtuwaay boo xamante ne kenn du ko weesu ñiy door a tàmbali di soobu ak bëgg a topp leen seen borom digal ak ñi nga xamante ne topp nañ ci yoono ba sori ca lool ñoom ñépp a bokk maaseendoo war di tuubal borom bi subhaanahu wa li tax mooy jox ko wàcc waaye moom borom bi subhaanahu wa taala day lu jafe-jafe loo xam ne matale ko jafe na te borom bi ma ni mu màggee jaamoo ko jaamu gu màggee ni màggee ak gu matee ni matam gi lu jafe lool jaam ñi la moo tax yu nekk tuubal ko di nekk lu war ci rëcc rëcc yi ñu yëg ak yu ñu yëgut yi ñu xam ak yu ñu xamut taqoo tuub lu ama am solo la ci jaam bi ndax tuub bu weesoo rekk njëggalu yàlla ak yërmaande gi ci nit ki di sentu yàlla da ko ci dig yeneen pay yoo xamante ne mën na koo jariñoo fii ci àdduna waaye boo léegi yomal xiyaam itam dana koo amal njariñ ndax yàlla nee na képp koo xamante ne yaa ngi tuub boo tuubee man sa boroom subhaanahu wa dinaa la dëgëral jox la alal jox la njaboot dimbali la loolu rekk jaroon na tuub waaye itam nee na xeet ya leen jiitu woon daan naa leen mbugal waaye yéen ñi nga xamante ne yéen a topp yonente bi sallallahu alayhi wa li fi yéeg yonente baa ngi ci seen biir duma wàcc mukk ak mbugal jëmee ko ci yéen waaye bu fi yonent bi jógee itam wan leen gannaaw alayhi salaatu wasalaam li fii ak yéen ngi jëfandikoo loolu mu leen jàngaloon te mooy di tuubal yàlla li fii ak yéen ngi tuubal yàlla man yàlla duma wàcce mukk am mbugal di leen ko mbugal ngeen koy gis ci seeni bët wa ma kaana allaahu li yuadibahum wa anta fihim wa ma kaana allaahu muadibahum wa hum yastaghfiruun loolu alxuraan la muy wane rek wàcc waaye ak daraja ji nga xam ne tuub am na ko waaye di wane itam bu baax a baax ni ko al imaam waxee ne tuub moom ndigalul yàlla la lum digle loo xamante ne eh, war nañ ko lu baax bu weesoo ñaar yooyu itam mu indiwaat beneen aaya ngir dëgëral lekk wan ne woote wuy yàlla mooy tuubal ko daal di wax ne eh, yàlla day eh, nee na dafa bëgg ñi nga xamante ne dañ koy tuubal kon nag tuubal leen ko inna allaha yuhibbu tawaabiin wa yuhibbul mutatahhirin yàlla daa bëgg way tuub yi bëgg ñi nga xamante ne dañuy jéem a laabal setal seen bopp ci tooñ ak bàkkaar yi nga xamante ne ñu ngi koy def ak rëcc-rëcc yi leen di dog leen di gaar ci seen diggante ak seen boroom kon ñi ñaari aay yooyu rek doyoon na sëkk ci xamle daraja ak wàccuwaay bi nga xam ne tuub am na ko ci dundu jaam bi wasbiru ala iqaamati faraidihi allati faradaha aleykum na ngeen muñ nangeen ngeen muñ ci taxawal farata yàlla yi ndax jaamu yàlla am naw metit woo xamante ne képp koo xamante ne nguwoo muñ doo ko def ni la ko yàlla digalee tam ne ngeen tuub na ngeen na muñ ci di jéem a taxawal eh, ndigal yi leen yàlla digal di taxawal farata yi nga xamante ne sunu borom moo leen ko fara moo ko farataal ci yéen eh, te farata gém ko farataalkat daa bëgg rek bu ëllëgee mu jox leen teraanga joo xamante ne dana leen ko teralee mu fayee leen ko mu uh, ci seen jaamu googu nga xam doon ngeen ko jaamu ak muñ gi ngeen doon muñ ngir taxawal jaamu gi daakum biha ila xadratihi li yukrimakum kon eh, muñ ci jaami ya jaamu gi ngay jaamu yàlla ndax léegi-léegi mu mel ne day am mbir yu lay gaar ba bëgg a dox sa digganteek li gën a màgg ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla gi eh, wala li nga xam ne moo ci gën a feste ëpp ci doole muy julli ne léegi mel ne da ngay tabje lool xat lool waaye saa yoo muyut muñut eh, li nga xamante ne mooy jafe-jafe ak xat-xati àdduna bi ngir jublu ci sa borom jëfe ndigalam loolu wàccoo ak moom soo ko mu muñul rek taxawal ko dana jafe ci yow lool moo tax day mel ne jaam yàlla léeg-léeg mu mu mu jafe lool léeg-léeg mu metti lool léeg-léeg mu xat lool waaye nit ki daa war a jéem a muñ leneen la nga xamante ne day dox digganteem ak jaamu yàlla ba mën a taxawal li ko yàlla digal jaamu boromam subhaanahu wa taala ndax loolu mu ëpp ci moom njariñ leneen lu mën a doon loo xam ne ma ngi koy jéem a def wala mu koy jéem a wala mu koy jéem a taxawal al imaam sëñ Modou Mamoun Bousso nag daal di ñëwaat ci di wax di wax nit ñi ne leen na ngeen moytandikoo sànq seen dund gi ndax lii may wax su ngeen ko defut da ngeen sànq seen dund gi te képp ku sànq ak dundam rëccu xalsan na ko dikkal bis te jë rëccu moom li ñuy wax rek day fekk jëf day fekk jëf wees loolu moom la tënk ci njëlbeenu ko xutba bu njëkk bi ñaareelu xutba bi nag mu ñëw ci bàkk yàlla sun borom subhaanahu wa taala tagg ko ci melokaanam yu kawe yu sell yi mu làmbool waaye itam eh, ñaanal xéewal yontu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi waaye seede ne eh, dëggal ni yàlla moo ko yónni ci jaam ñi jox ko ab leetar boo xamant ne moom la war a jox ñépp leeral leen ko te def na ko ba mu leer nàññi mu bàyyi ko ci ay loxo yoo xam ne ñoom it laleen ca waroon ci gannaawam te mooy leeral ak woote yooyu rek moo leen ci war ñooñu itam mu ne def nañ ko na mu gën a rafetee kon nag yéen ñi jot woote bi jot njàngale mi mooy te mooy xam ngeen li baax xam ngeen li bon waay waay góor góorlu leen ci li leen di jariñ te mooy dem ci li yàlla digle mooy tondiku leen di tàbbi ci li leen di lor te mooy li leen yàlla tere àddunaa ka gàtt àddunaa ka gàtt te ñàkk solo su ngeen moytuwut dana leen wor na mu woree woon seen maam ak seen baay yeleen jiitu woon te àdduna woroon leen ñu jël li ëpp ci seen waxtu def ko ci dunduk àdduna gi nga xam ne day jeex mu gënal leen seen dunduk àllaaxira gële nga xam ne day des yéen a ngi def ay pexe rekk ngir yàgg fii ci àdduna te bàyyiwu leen xel ne am na dund gu ko gën a sax gu ko gën a yàgg goo xamante ne loo fàggoowul fii yóbbu ko fa dootoo ko amati kañ ngeen di góor góorlu ci li leen yàlla digal mu gënal leen li leen yàlla tere kañ ngeen gënal seen àllaaxira ci seen àdduna ci bañ a xeeb jenn jëf ju baax ju ngeen mën a def seen baay yu njëkk yee leen magoon nekkoon seeni eh, kilifa nekkoon seeni njiit anañu tey ñoom ñépp yàlla jël na leen li des ci seen dund gi lu néew la ndax yàlla waxoon na iqtarabati saatu wa shaqa al qamar yowmal xiyaam léegi tey mu ñëw dund gi jeex yàlla taxawal yowmal xiyaam ñépp taxaw fi kanamu borom bi mu àtte leen li ngeen di def ci lu baax lépp yàlla xam na ko dajale ko ci ay téere li leen di gaar ci ay safaan ak seenu càggant lépp yàlla xam na ko bind na ko mu nekk ci ay téere bis bu ngeen eggee ci yàlla yéen ñépp da leen bàyyi ngeen jàng kenn ku nekk lam jëfoon ci téere jëfam boo liggéey iqra kitaabaka kafa bi yow al lay alayka xasiba loolu mooy li leen sunu boroom di wax kañ ngeen di wàññeeku ci seen cànkute gi ngeen nekk yoon wi ngeen sóobu te mooy bëgg àdduna fonk ko ba mu gënal leen eh, def lu baax ba gënal leen def ngir yàlla ba mu gënal leen tal sunu boroom te ngeen koo bàyyi te wan ko gannaaw jublu yàlla mu jox leen lu gën li ngeen di daw di dabu ci àdduna te du ngeen ko mës a jàpp mukk loolu mooy Eh, njël li gën a fes ci xutbam ñaareel bi nga xamante ne Cheikh Mouhamadul Mamoun Bousso leeral na ko te muy uh, njàngaleen wu am solo waaye nekk ak waar waar goo xamante ne gu am solo la war a yëngal ñépp li ñu seetlu nag ci bopp tey bi nga xamante ne day mel ne Cheikh Mouhamadul Mamoun da ko joxe ci joxin woo xamante ne wu méngoo dëppoo ak ni ñu war a joxe ab xutba la ni ki nga xam noonu la daan amee saa yu nekk waaye tey boo seetloo ci ni muy taxawee ci barab yi nga xamante ne day fàttali nga xam ne day jàjj nit ñi di leen uh, wan ñàkk solo àdduna waaye bu koy wax ak kàddu gi ni mu koy waxee da nga yëg ne kii mi ngi wax lu ko ñor lool waaye bëgg nañu ñi mi waxal itam bàyyi xel ne lim leen di wax lu ama am solo lu mat a bàyyi xel la day mel na sax ci njëlbeenu xutba bi bi mu daaneel dangay gis ne moom muy wax waare gi dugg na ci xolam tàbbi na ko tàbbin woo xamante ne feeñ na ci kàddu gi waaye feeñ na ci joxin wi itam mel na ñaareelu xutba boo gi boo boo buñ seetloo bu baax sax bi muy ñaan day mel ne ñaan gi eh, jot te egg ndax dafa jàng ab aayab alquran daan ne ah, sadaqallahu alazim aaya boo xam ne day wax ne yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yowma eh, yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yowma idin lillah bu ëllëgee mbir yi sunu boroom moo koy téyal boppam ndax wal xaakimu huwa allah booba yàlla rek mooy nekk ñëpp da ngeen dem taxaw ci kanamam mu leen di àtte ma ne bi mu egsee foofu da nga yëg ne mu ngi bàyyi xel ne jotaay la boo xamante ne képp ku ko ragalul képp ku ci tiitul képp kum dawul sa yaram képp kum xupput kum jàjjiwut kooka ku war a xoolaat boppam la ci war a seetaat ab xolam wala càmbaraat yitam ak ngëmam mu nekk xutba bu am am solo boo xamante ne eh, njariñ li foo ko takk weesu na ko ndax saa yu nekk di jàjj nit ñi di leen waar te lool dafa bokk ci rôle eh, yi nga xamante ne wala taxawaay yi nga xam ne xutba da ko war a am ci penc mi te mooy waar nit ñi jàjjiwaat leen ba ñu jàjjee bàyyi caaxaan yi ñu nekk bàyyi folklore yi ñu nekk bàyyi Eh, sàggan gi ñu nekk te jublu yàlla sunu borom subhanahu wa taala dëgmal ko tal yàlla sunu borom subhanahu wa taala di jëfe ndigalam yi di bàyyi tereem yi xam ne loolu ci la seen njariñal àdduna nekk ak seen njariñal alaaxira kon xam naa dañuy tenk foofu wàcc suñu kàddu di jox beneen daje ci beneen jotaayu ëttub xidma fii ci GMT TV muy eh, la grande mosquée Touba TV muy seen bi nekk ci biir jumaay Tuubaa ji di def ay jotaay ngir leeral ah, ak gën a yaatal njàngalem lislaam ak gëna xamle bu baax a baax wooteeb sëriñ bu mag bi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala